kaca bi dugg dafa génn dànk nit bi mu leen di war ay kanam gaa yi copain yi toog di ko reetaane quoi mënul gis deret mënu ko koo xamante ni nii xamul def lu bon franchement xamul xamalu xamaluma ko te jëfewu ko monewu ko aussi Ousmane ni ko dus Ousmane boo xam moom bu sa a jógee sax nga gis mu noppi bare ci boo entre copain bi nag ku ko ku ko fekk ak ay copain nag da nga naan kii ak Ousmane ba nekk faak Ousmane Mbaye gis gaynde bu taxaw ci meeting di wax ak Ousmane bu taxaw si meeting bi benn borom Ousmane bi ne ci kër vingt deux ans de mariage Ousmane musul rendi xar bu tabaski musul rendi xar tabaski je me rappelle sama deuxième bés bi mu juddu kër gi takkoon si topp carré vide la woon ñu toog ay timis rek tànk bi dox ci ñaar damay damay damay damay faral di wax ne buñ ko doon buñ am jamono mooy ñiy tudd ay sëriñ pare ndaw am doole nangu ñu am métier nangu ñu ak asile jàng bu nag doo dox buy dox dee dem safara maa la ko wax de yéen ñooñu ku ci dee dem safara yéen la askan wi gën a bëgg nag waaye ku ci dee yaa nga safara tabbi a safara jahannama naarullahi jahannama maa la wax de coow li lépp lii la mhm mhm day loolu dëkk bi mais loolu ngeen ñu ñëw après aussi gars yi dañu ñëw looloo tax ngeen ñu profité quoi naan ay gars yi bëgg ñu sëriñ ba duñ ci ñëw li ngeen liggéey par force maa leen ko wax dañu war a jël Moussa Fall la war a jël mu dugg ci àll ku waxambaane bu ñu fekk ngay taxawaal wane yaa ngi liggéey ñu ñaf la ci kaso bi loolu dañ ko war a def référendum référendum lañ ko war a def yee mukk ci àdduna mukk mhm. dëgg dëgg ko dugg mu partage lu am solo la mën nañu waxtaan nag ku ci sa bopp euh, maanaam yéen taalibe yi yéen laay invité tey góorgóorlu ngeen bu ñu kenn divertir ñoo leen fii ñu wax waxuñoo benn sëriñ déglu leen bu baax waaw waaw bañ a liggéey waaw dañuy lor askan wi kenn ci ñoom kenn danga ñuy lor askan wi général Moussa Fall la ñuy jël dégg nga teg ay loi yu fort ku ñu gis ngay lewax lewaxe bañ liggéey di nga wane lu weer gu la gisee ngay taxawaalu da nga ni maanaam sama bureau laa jóge walla wala sama place sàngam laa jóge damay dem jëndi lekk dama dama jël pause da teg ay firnde yu leer nañ wala ñu ñaf la ci kaso bi waaw waaw. mm Mhm. bëgg toog muy dox waaw toog mu dox bi lii la du leneen Modou Fall fii la toog di gërëm Marème Faye Sall ndax oto bu mu ko may loolu mooy toog muy dox dégg nga dem na ba benn jamono yàlla dogal oto ba dem accident def accident te dara jàngalu ko ci ci nja bi muy jàng nee ak di ko jàngale dara mu demaat defar déclaration ci télé yooyu nga xamante ni antenne yi ñoom lañ koy jox ñu war cee mën a wax lu am solo nag waaye xoolal yu ñàkk fayde rek dagge sante dagge sante waaw jigéen ñi de moom la ñuy topp nee ñu lex yi noo nooxal ay lex waaw lex li muy nooxal dugg na ci yooyu ngeen nekk sarme sarme wu dégg yow yaa ko wax waaw ñàkk jom mënta weesu loolu askan wi amuñu lekk nga ne yow sa salaire ñetti weer doo ko laal loolu mooy jeex ci réew mi de tappale yooyu noonu mooy jeex ci réew mi léegi sa salaire doo ko laal ba noppi soo oto mi yàqu te mënoo koo defar xam nga loolu baadoola la loolu mënta weesu baadoola nekk ci kër kër ga manqué dépense nga nekk fa waxambaane dégg nga ki daan joxe dépense amu ko te yow yaa ngi denc benn cinq mille francs te doo ko jënd cigarette fas yéene woo jël deux mille francs yi joxe ko ni leen ah jàppaleen ci lii ñàkk jom yéen ñàkk jom ker dégg nga nit même boo dee def ay émission mën nga dem liggéey ba wàcc dem sangu dew ñëw def une heure de temps émission ci télé wala deux heures de temps doy na jaamu yàlla yéen yéen a gën a xam ne bu ngeen deewee ci li safara ngeen jëm yéen a gën a xam jàppale bi bu leen politique tey soxla waaye ñaata ngeen fi xeexal ay ñoom Marème Faye Sall manipuler askan wi da yaakaar ni fii mën ngeen ngarale askan wi nii bu leen li li leen ceddo murit di wax nan lan moo tax askanu senegal du ñu baale dëgg la lan moo tax ngeen dëkk ci def fi dox noonu la affaire bi defe demee bu leen ñu fontoo moomoo leen nit ñi loolu mooy toog muy dox dégg nga toog sawaay gars yi dagg ay terrain pàccoo ko nga xam ko ànd ak ñoom nekk ca biir gars yi dóor la ca benn terrain dégg nga nga noq dem defar sa këyit loolu mooy toog muy dox loolu mooy toog muy dox Modou Fall lu leer laa lay expliqué gënoo leen ñoo jàng dañoo ñàkkul jom kom yéen loolu laa bëgg ngeen xam ko gënoo leen ñoo jàng diine suñu doom yi sax mën nañ leen jàngal ci diine suñu doom yi ndaw yi dama bëgg ngeen régler te na rang yu jub waaw dem leen ngeen toj seen xutu xata yi ngeen dem liggéey réew mi loolu moo fi am yow jotoon nga toog fii di gërëm Macky Marème fay Sall te boobu ñu ngi rey sénégalais yi da yaakaar ne mën ngeen ñoo teg xel ah ñaata yoon boobu nit ñaa ngi dee ci gaal gi jéemoo leen cee wax dara toog di nooxali lex ah di jaayi taar ah di fontoo nit ñi sama waaye di fontoo nit ñi yéen yéen du ngeen nitu dara loolu mooy toog muy dox nag ma ma ma wax la ko lii toog muy dox mooy loolu fii nga toog so oto bi la Marème Faye Sall mayoon encore ak ginaaw enveloppe yi dégg oto bi bi mu accidenté wee loo def dema toogaat ci télé yu am njëriñ yooyu ngeen am antenne yooyu war fa wax lu am njëriñ naan sama oto bi accidenté na yow ku laalul sa salaire waay waay Modou Fall ku laalul sa salaire ñetti weer kon yow baadoola nga mooy li may wax mais yow kon vraiment vraiment vraiment dëgg-dëgg ab baadoola baadoola pire nga mais doo jël sa oto boobu accident nga dem defar ko ci sa salaire yi nga laalu ah léegi di di woowaat Marème fay sàll pour mu ñëwaat géew ma seetlu la ci ginnaaw googu nag nga commencé commencé jël di wax dëgg nag après ci ginnaaw googu sóoraale tawoo gouvernement bi c'est parce que xam naa da nga bëggoon ñu dolli la ndax yéen manipulation boobu ngeen nekkee woon ci réew bi yéen yéen a tax Macky Sall lajj ci mission bi nga xamante ni moom la ko yàlla jox jàppalewu leen ko xam ngeen ni yeen du ngeen financer sen sen leader de pour mu nek président du ngeen ko def muk, manam financer sa leader ba nopi ta yow soxlawal retourne retourne li nga ci soxla pour mu retourner wat du lenn dul nañu tabax réew mi nañu defar sécurité réew mi na li ni na réew mi am liggéey li dong lañ ci soxla pour retourner lu ñu lu delu ci wat ci ñun waye yeen sol seen grand bubu xam nga parfum ba neex cokki cokki ndank ak yow nan nga mën a amee oto ci réew ay émission télé di la ko fayal loolu daa mën a nekk émission télé da laa mën a fayal lool même boo yoree daara sa waay mille franc mille franc yi mënu ko xanaa yoroo jabar ak ay doom du ñu solo ah daf ko mën waaye yow bu la ñu fontoo toog muy dox boobu loolu mooy jeex ci réew mi dem toog ci télé yi ku la neex émission yi dañ koy regarder mu naaj dégg nga lu leen neex wax di ko jàngal xale yi loolu yëpp danañ ko régler seen wax yi ñàkk fayda yi ngeen ñu wax ci télé yi di dàgg sante moom ngeen ñuy jàngal xale yi ndaw yi dégg nga bu ngeen jugaatee nag di dem di blème xale yi ci tiktok yi xale yi nekk ci tiktok ci yéen lañ ko jàngee nii ñu nekkee nii ci yéen lañ ko jàngee yéen a yàq réew mi dégg nga mu mel na saay gayndogoo bàyyi ci biir askan saay bumba dagg ngay tëlli tëlli kenn xamul fooy teg sa tànk mais yéen yéen a yàq xale yi ci télé yi dàgg sante yi ci koor yi ñu war a jaamu yàlla kee indi fii sama sëriñ fii kee sama lii xale yi sawaay foofu yéen a yàq xale yi laa leen wax yéen a yàq xale yi waaw fii sa fii suñu réew mi am na seen yoo xam ne fii ñu nekk nii suñu doom yi duñu seetaan ay ay ay lu dul ay dessin animé la ñuy seetaan te yow parent bi sax yaay tànn bi ñuy seetaan parce que foofu mën nañ fa jaara yàq xale yi façon boobu moo leen dal bu ngeen moo tax xale yi ma gis nii nu ñu dalee ŋaam nii ni ñu dalee ŋaam ci TikTok bii yéen a leen yàq ñu mel ne ay Ahmed Cissé dañoo war a jël ay mesures yu mat suñu doom yëpp yàq nañ leen di leen tëddee di leen jàngal ay yëf yu bon ay xale yu jigéen ñu ndaw ñooy nekk foofu noonu ci seen live bi TikTok di fa nekk di fa jàngee ay yàqu yéen ñu bon ngeen te diine ngeen ñu woote diine ngeen ñu woote loolu moo war a jóge fii ci réew mi gënu leen ñoo jàng diine ji dégg nga dem leen ngeen liggéeyi ginnaaw bi ngeen bi ngeen jàngee ba noppi da ngeen war a dem liggéeyi ci loolu la ñu woo toog muy dox yaa gën a xam lu muy doon toog muy dox boobu moo waral laaroo sa salaire ñetti weer dangeen ñàkk jom amoo leen ay jom te du ngeen patriote mënoo leen nekk patriote bi ñuy toroxal askan wi yéen a ngi séddoo ba robinet yi tëjee ngeen commencé euh, dajjeeti seen gat gi di fonto nit ñi yéen ñu ñàkk fayda ngeen ñàkk jom waaw yàq population bi yéen la population bi nag gën a bëgg nag te xamuñu ay imbécile ngeen da ngeen war a dem liggéey yi dugg ci àll bi dem bay émission mën nga ko def ñaari waxtu waaw yàq jom yàq réew mi ba pare di fonto fontoo fii ëla yàq sax gone yi ngeen ñuy wëlbatikuwaat dëkk yi gone yi nekk ci tiktok bi di jaay yéena leen yàq fii ci télé yi la ñuy toog di wax lu leen neex am na benn maire bu caga buy wax xaw ma ngóone mbaay la xaw ma di nekk ci télé di wax lu bu ngeen gisee loolu ci tiktok yi ngeen bëgg fi nekk di indil nit ñi ay problème yàqate réew mi ba mu yàqu yaxeet maamu xaraam yi ah xaalim sàmba gouvernement da ngaa war a rey di tëj défaite bi dalaa bett de léegi say wax moom faaw nga mesurer ko say parole moom il faut le mesurer waaw léegi de faaw nga mesurer ko ndax léegi xam nga ma wax leen lan moo tax mu mesurer ay waxam léegi ak di jégalu ma wax leen ok xaalim sàmba jaaykatu suuf la ay waa ji la ay faramateur yi li tiital xaadim sàmba maa leen koy wax yéen askan wi dégg ak ñeneen ñu dul ñoom ñi génn di aalu am na ki vidéo bu ñu génn di àllu nee na moom dañ ko compaloon loolu Aliou Sall da koo neexal pour mu génn défendre ko waa ji doon àllu fii bërki démb ba ma ciy defal ba ma koy defal laay mais xaadim sàmba nag maa la ñuy wax yéen askan wi yéen askanu Sénégal te bu ma neexee nag mu porte ma plainte parce que xam nañ ni pays de droit la ñu jëm te man pays bi ma nekk tamit pays de droit la kon xam naa ci li ci nit war a nga war a indi say preuve waaw loolu dafa war a leer bu ñu yeggee foofu ci phase boobu bu ko defee ba ñu yegg ci phase boobu rek ñu xam ni lépp dëgg la waaw waaw lépp dëgg la Xaadim Sàmba li tax muy mesurer ay parolam léegi ak a jéggalu promoteur la waaw ci njaayum suuf <laughs> ay waay jële waay ay waay yoon waay bu ko defee nag loola tax ñuy profité di préparer ñoom seen opinion yéen ci li ngeen nekk yéen a ngi ci ba noppi divertisement ak sos ak fen ci kon maanaam da maanaam da ngay ñuy fàttali seen doom yi rek maanaam ni leen yéen fii ngeen war a taxaw di fa waxee wala yeneen ak yeneen mais foofu yegg nañ fa moo tax man leen toog leen foofu di wax rek li nit ñi li ñu voté seen carte yi tax ñu jël ko joxe ko dañoo jàng programme bi ba xam ko tëb ñu nii rek dem joxe ko loolu laa bëgg ngeen xam ko gars dañoo jàng li ñuy jàng ba noppi doo koy dem joxe ji waaw bëri na ci ñu ñu nga xamante ni jàpp nañ ni franc CFA bi danañ ci génn ñu joxe seen carte bëri na ñoo xam ni jàpp nañ ni yii yëpp daje yii yëpp daje ñoom dana danañ ko am moom seen bopp moom seen mbay moom seen euh, géej dala dellu moo tax ñu jël seen carte joxe ko ak sécurité ci réew mi dégg nga ak justice justice bii may wax ak yow nii xaadim sàbb ak ñu mel na yow ne danga ngaa war di rey di tëj dëgg la moo tax ma ba keroog ba ñu reyee soixante douze heures yi ba ñu reyee soixante xale yi te fu ñu limee soixante na nga xamante ni denc nañu yeneen ñaari soixante noonu la ñuy noonu la ñuy opéré gouvernement yi yi fi jaar dictateurs yi noonu la ñuy opéré fu ñu ne la soixante lañu ñu rey ba d' accord ci ba d' accord ci soixante yi ñoom ba tegal la chiffre na nga xam ni jéggi na dayo dafa rey di tëj ba ma ko ba keroog def nañ ci live sax ba fàttali la ko ma ne gis nga ko Xaadim Samba yaa doon wax naan gouvernement da ngaa war di rey di tëj gis nga rey na de normalement, ces pays, normalement, ici, ces pays, parce que vous avez avant le raid, avant le masse de vous 60 personnes, c'est 60, 72 heures. 72 heures, il y a direct les problèmes, il fallait, c'est 64. Donc, 73 sectes. Donc, 73 sectes. Mon 72 yep dans un dem safara bamou dess ben bi hé xadim sab li nga ci sen aduna Hmm, ya naa neex de waye mujjé neex de moma gënal man <laughs> mujjé neex neex dal moma gënal waaw mujjé neex dal ma gënal man wax deug yalla la lali lang la nga xamanteni sa saa mën nga sigi di dox fu la neex kenn du ni sa ancien sa ci baangi ne lol dara dax ko ancien sa ci baangi ne dara dax dara gën manam ñu ñu bañ la ko wowe lol dara dax ko wala di la ko xolé waaye après di mujjee di laxatu wala di lalu si seen biir kër yi dara jaru ko fi dara jaru ko fi trait de vie bi ngeen tàmmoon dégg ah lu ci ya-, maanaam loo xam ni maanaam extra la woon rek bokkoon ci gouvernement yi fi nekkoon di pasar pasare àdduna yi alalu askan wi rek da ngeen pare ngeen ci yéen façon boobu moom pare ngeen ci lu leen neex nag mën ngeen ko wax mbay waaw parce que xam naa li euh, waxam yi ma dégg nii fu mu jëm mbay peex parce que dane ni dafay wax ni waaw yàgg-yàgg di ngay ñëw ci kanamu sëriñ bi te dinaa ubbi sama gémmiñ gii waxal leen lu baax waxal leen ay baax-baax ñu naan mbay peex a ngi noonu di darati nañ ko maanaam embuscade boobu noonu lay wax quoi ne dana am waaw te te nag da cee da cee bëgg embuscade boobu da cee bëgg dana am incha allah ñiy wax yëpp ñu nopp ñi commencé lu ñu naan leen demuñu ci sëriñ bi kii dafa bon gis naa benn commerçant boo xam ne ma ngay wax waxi ay dof dégg nga da ngeen régler rek wàññi dox wàññi kii yi quoi dof dof lu bi da ngeen defet moo defet ci boppam moo garaaw te yow commerçant bi noonu noonu bu doon Macky sàll kese la wër na yàlla yaa ngi ci àll bi di wari mbaam man maa la ko wax bëgg-bëgg 4 pour cent yii nii ñooy dugal xaalis seen waajur yi di mën a ñëw di dugg sa ci sa bitig boobu di jënd kaani ak poobar loolu laa bëgg nga dugal ko ci sa bopp bi Basiru du seen morom son excellence dana defar réew mi te du ngeen ci mën dara dana avancer waaw ci commerçant yu bon yooyu ci ngeen bokk waaw commerçant yu bon yooyu ci ngeen bokk waaye askan wi léegi ñu am liggéey kenn dootul ñëwati kenn waaw bu soobe yàlla loolu lay préparer quoi mbay peex dara du leen ko may kii président ak mooy yow gars yi fii ñëwuñu régler cas yi fii kese de dafa am dossier yoo xam ne Macky Sall moo ci tegoon coñtam waaw kooku awa awa Ndiaye awa Ndiaye xaalis boobu est-ce bi lekk ko bu yàgg xanaa kay prison rek waaye famille bi xaalis milliards yu bëri ci la toog xanaa jaay kër yeeg yooyu rek bien Awa Ndiaye Kout waaw rapport ñii rapport yi téye yéen yéen da ngeen ñuy woote ne na gars yi léegi gars yi ñoo doon woote rupture ñoo doon woote développement léegi nañu wàññi dund gi waaw loolu mi ngi ñëw xam naa ne yàkkamti ngeen ko waaye gënul ci yéen de ci ay jooy lay mujjee ci yéen xamala la yéen axlu euh, euh, ex ex pouvoir <laughs> ci àdduna loo gis day jaar rek lu tëgg tas ak rasulullah ex pouvoir da dama leen gis ngeen ñuy wax naan waaw na gars yi ñoo fi waxoon néew leen seetaan may leen six mois may leen leen six mois rek dégg nga waaye lépp la annulé laa la wax affaire dof yi fi Macky Sall mujjee def yépp la annulé may leen six mois mën ngeen indoone euh, kii bi weer dee ñu fay leen yéen da ngeen yaakaar ni nit ñi ay dof lañu quoi Hmm? yéen waroo leen ko yàkkamti maanaam gars yi nañu léegi fii lañu mujjee ak yéen ma wax leen ko yéen APR yéen ñuy wax wax jooju fii la ñu mujjee déjà keesu gouvernement bi dara nekku ci yaa ngi may dégg dossier dafa am xaalis boo xam ni dañ ñu koo dencal te jëmagu mu ngi fii ci réew mi kudd mii ma lay wax ci la bokk kudd loolu ci seen ginnaaw la yéen xam naa sax bëri na ci yéen ñoo xam ne juddoo bu ñu woon <laughs> wala ay xale yu ndaw la ñu woon seen ginnaaw ndey dégg nga léegi gars yi bu ñu ñëwee jël dossier yi teg justice bu jaar yoon affaire yéen a ngi dégloo bu ñu tegee justice bu jaar yoon ba mu nga xamante ni jaar na yoon ñu jël dossier yi teg ka fa léegi nii nga xamante ni ñoo leen doon fay ngay ñuy wax <laughs> ay fi gars fi fi ñu nar a mujjee léegi nag ñu war a jël xaalis boobu ci ñoom pour liggéey réew mi nag bu boobaa di nga gis dund bi wàññeeku waaw waaw rek tak yow waroo koo yàkkamti de ndeysaan liy gasal sa boobu bàmmeel <laughs> Macky la du yéen a ko xeexoon ñun ñëpp a ko xeexoon amoo leen sens yéen dinañ leen wan leen mënoo leen nekk nit yi am ay sens élection fii élection ba vingt ans laa la wax nii du ngeen am dara nar ngeen sonn dara du ngeen ko am bu soobee yàlla ku yóbboo nag di leen sóoraale di leen surveiller bu baax parce que ay raykatu nit lañu waaw ndax mën nañoo dem ba benn moment parce que rebelle dëgg ñoom ñooy robel yi ñoom ñu ay terroriste ñoo fi nekk nii jàkkaarloog ñun na ngeen xam loolu ñoom ay terroriste lañu APR li te te te bu ñu demee ba justice ñëw dina ko wane dina wane lan moo tax ngeen nekk ay terroriste ay terroriste ngeen waaw ngeen ni général Moussa Fall waaw dara jàmbaar la dafa am yërmande ci ay doomu aadama yéen ay doomeeraam te moo doon rey suñu doom yi di toog di osé di toog ci tele yi di xataraayu ay mbaam yoo xam ne soo ay tekkiwu ci dara ndax reyuñu seen doom Moussa Fall reyul seen doom bu Moussa Fall reyoon seen doom du ngeen wax loolu yàlla ngeen dee ci accident rek yéen doomi xaram yi mel noonu yàlla ngeen dee ci accident man maa ko wax dégg nga bu Moussa Fall reyoon son seen doom du ngeen toog fii di ko défendre te kenn waxu ko dara fii justice moo fi toog lu ngeen ñi tiit dafa am ñoo xam ne dañ leen rendi fii rey leen sauvagement Mariama Sagna justice bi day tegu ci kaw taabal bi sénégalais moo ko rey moo ko reylu mais justice bi day tegu ci kaw taabal bi sama waay mën na nekk yéen ñoo ñu nekk ci tiktok bi kenn ci seen bàyyi sax mën nga fi gis ay surprise yu rëy ñi fi toog nii di xeex bokk waa côté bale ax lu terroriste yi kenn waratu leen woowee APR ax lu terroriste ay terroriste ngeen ay reykatu nit waaw ay reykatu nit rey ay maas ay nit ah, you know it's war crime man crime crime yu ngandee ngandee ngi noonu loolu crime la crime crime yu mag a mag yooyu noonu mënu ko weesu ngeen bëgg a exister yéen ku loxom set wecc moom la ñuy jàkkaaral opposition mais yéen du ngeen opposition APR du opposition keneen koo xam ne laalawul ci li rey xale yi ñooñu ñooy opposition yéen da ngeen bëgg réew mi un ay zéro virgule pour cent dañ ñoo mën a yëngal dañ leen ñu yar rek toog leen ñu yar leen da ngeen yàkkamti gars ñoo leen gën a yàkkamti dund gi mais ñun ñii altine la yéen yéen a yor leng yi ba tey altine ngay ñu joxe pétrole beeg gaz beeg lépp altine ngeen koy joxe bu soobee yàlla bu ñu jugee ci altine ñu commencé xëy na ah, dossiers yi xam naa accéléré ko même altine bi xam naa ne moom li ma leer ba leer dossiers yi dana tegu ci kanamu justice altine léegi loolu noonu xaalis yooyu buñ ko récupéré sama waay dund gi mën naa wàññeeku investir ko ci réew waaye sa sama waay balaa rak tax sawaay dund gi wàññeeku maa la wax loolu da bu jëree sax gars yi dem jënd li fi jot a nekk ci ay ceeb wàññi dund gi dana ko jar waaye gars yi danañu teg seen stratégie moom waaw parce que ñu yéen du ngeen ñuy ñëw di ñu taxaw benn euh, un virgule zéro pour cent di ñu wax naan waa ji wàññil dund bi ci benn weer loolu ci diggante saxal ceeb la ak ak ñoral ceeb ak dindi foofu laa koy natt man su ma demee ba tollu foofu fi ñuy saxalee ceeb waaw fi ñuy saxalee ceeb ba mu ñor ba ñu bàcc ko ci diggante boobu laa koy nattee pour ceeb wàññeeku man bu boobaa nag bu ñu demee ba foofu noonu nag ba ñu passé ko ba nga xamante ni passé nañ ko lu romb deux mois bu boobaa nag ma gis ni dund bi ceeb bi wàññeekoogul ndax xam naa ni moom lu ko wàññi loolu la justice bu tego rek na dossiers yi gaaw a dem rek waaw yéen da ngeen yàkkamti dossiers yi xam naa sax parce que yéen yéen ñi faral ay nit jàpp ngeen ni seen nit yooyu seen loxo set na yéen jàpp ngeen loolu comme da ngeen bëgg seen nit ba di leen ko jàppal yéen waa ahlu terroriste mooy APR terroriste yi déglu leen rek bu baax a baax a baax a baax maa la ko wax altine incha allah dossier bi dana tegu ci kanamu justice bu leen ragal dara bu leen ragal dara xaadim samba dara bu leen ko ragal bu leen daw bu leen dellu ginnaaw waaw même ay mbay peex nii yépp parce que bu fekkee ne ay suufu jàmbur lañ doon nangu di leen ci daggal ngeen ñu jaay mais ruux ngeen siiru di leen ci daggal di leen ko may di leen ko jaay mais ruux ngeen siiru sama way lu leen raa lay expliqué toog leen foofu rek dégg nga ay ñoom Antoine Diome ñoo ngi nii am foo xam ni dañ ko dem séddoo ci filaawa yi fële ci xawma euh, kii bi benn domaine public ñu dem jël ko làqatu ci ginnaaw fulaay filaawa yi gis naa vidéo bi fii partagé nañ ko partagé nañ ko ci dossier bi moom la paaboo boobu di bañ ñu def ko ci dossier bi la bokk Deng, ay mbaami xaraam yu bon reykatu ay nit waaw da ngeen ci wax de waxuma ko de Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. waaw communication tudd ay jàngkat bañ a liggéey waaw waxuma ko de waaw Modou Fall déglu waaw yéenay lor askan wi déglu leen lii seen mbokku taalibe moo ko wax dégg nga bu mag boobu noonu toog tuddee sëriñ lànk bañ a liggéey yéen a réew mi groupe bu mag boobu noonu toog tuddee ay ustaas ak yi di dem ci tele yi yéen a liggéey réew mi lànk bañ a liggéey dégg nga groupe bu mag boobu toog tuddee boppam géwal communication communication xaw ma communicateur euh, euh, traditionnel dégg nga lànk bañ a liggéey yéen a tardel réew mi noonu la mbir mi demee groupe bu ngandee ngande la laa la wax nii toog muy dox toog muy dox dana neex gouvernement da nga war a di tëj mu ngi masir ayu kàddum masir man de xaadim xaadim sàmba boobu say masir voilà Idriss Seck dafa am lu mu doon wax nag waaye fii ay nanditu ñoo fi nekk mu ni léegi waaye Idriss Seck ne léegi maanaam xale yi léegi ni ñu reewee ah, da ngay dem toog ci restaurant bi ñuy sinaab seen lekk yi ah Idi lan moo la xam loolu Idi nii lañu nekkee woon seen alal bi dégg nga aha kay dinañ ko sinaab kay loolu du la neex ndax dangay bañ mu sinaab la xam naa moom da koy always di jël teg ci sa wet ci sa côté gauche bi pour ngay xam nu muy sinaabee doo jàkkaarloog moom ba xam ni lay jël parce que da ngeen da ngeen mën a yàqu ci côté téye suñu xale yi ndaw yi ci réew mi sama waay dégg nga yàq leen di leen jëlee leen ci seen loxo waajur yi mais loolu noonu mooy loolu mooy loolu mooy corruption de la de des jeunesse yéen yéen a ko doon def di ko di ko jiiñ Sonko xawma de la jeunesse mooy corruption boobu ngeen jiiñ Sonko yéen yéen a koy def Idrissa sek sa nettali googu noonu li ma ci jàngat mooy nga ndamal ponkalu maamu jaanu ñàngooru saay-saay nga man maa ko wax ah toog ak xale yi di def sinap ah naan nii di ko wan seet di ko kii yi nga ànd ak ñoom restaurant ñi kii di def ay sinaat déglu leen seen mbokk mi li mu wax nii ngeen nekkee woon ci réew ñu lekk xaalis ci réew mhm. Mhm. maa la wax loolu gars yi am na lu ñu xam de man euh, kii bi ñu def série bii nii xaw ma maîtresse man seetaanuma ko appareil bi bi ñu naan dafay am ay dépression wala yooyu ci euh, Facebook bi som yenn saa yi laa ko doon gis mais dama ko doon déglu nii muy wax nee na ni ngeen doon xëppee xaalis ci réew mi ci xale yi di leen yóbbu fu ne léegi Basiiru am na lu mu wax xaalisu sénégalais yi kuñ ko def sa tur wala mu nekk ci yow ñëwal bu fekkee ne nag ñëwuloo nag dégg nga lu la ca fekk yawa lu la ca fekk yawa waaw ndaw si nee na gars yi wàcce nañu léegi mën na wax laay la te <laughs> rasulullah loolu yàgg na am ay mambay ñaa bu leen ko fàtte xale yi mu doon yóbbu ay Dubaï ay France nee naa leen am na porte parole boo xam ne fii non ay yéenay yéenay doom yéen yéen la illa porte parole boo xam ne moom France la yor xaleem bu toog di ko fayal appartement bi imaginel nga nekk Sénégal yow yoroo entreprise yoroo woo dara yoruloo entreprise yoruloo dara noo dund ngeen nag barke jagomay dund ngeen loolu li góor di rêve yëpp def nañ ko sama gaay yi amin amin amin yaa rabbi yàlla rek yàlla mi mën lépp ndax lépp lu fi gaay yi di woowee xut bu samaan ci réew mi ànd nañu ak Amadou Ba maanaam woowee laa wax de waxuma ñu ko doon de ànd nañu ak Amadou Ba te Amadou Ba amul dara amin yaa rabbi yàlla rek moom mën barke rasulullah ci barke koor gi amin yàlla ñu yàlla nangul suñu koor ndaw si dégg li mu wax dégg ko bu baax a baax kon nañu sàmm suñu projet bi xam ni njabootu senegal mooy projet bi njabootu senegal ci biir loolu nag am na ate bi am na lépp loo ko mën a limee na ci gaa yi bàyyi xel bu baax a baax a baax ñoom ñoo woote jël seen carte joxe ko bu ñu fi jàppee nit ñu naan nit ki privé la ci Sénégal kenn waru koo jàpp wala ñuy nangu suñu alal ñu ni nit ki privé la ci Sénégal kenn waru koo euh, kenn warul nangu xaalis boobu noonu dégg nga kon bu yoboo ngeen xam ni nag lu waaye nga xam rek na nga préparé sa bopp ndax ñun Sénégal moom nañu man li ma gën nañ ñu jox suñu carte d'identité ñun ñëpp rek ba tappale dootul amati lu waaye neex defal ku mu neex mën nga ngemb sa mbër bu boobaa ñun sénégalais lamdaar bi ñu ngi fi toog waaw ñun sénégalais lam daal bi nga xamante ne ñun fii yàlla dong lañ fi am ak yonente bi ak suñu ñaari waajur ñun ñu ngi toog waaw ñun xam na nañu kan la ñuy jël suñu xob di ko ko jox da ngeen bàyyi seen waxi tappale yooyu di toog naan ay ñëwu fi ah euh, euh, yónnewu fi dugg na fi génn fi yéen ma fàttaliwaat leen ma fàttaliwaatal ko taalibe boo toog ci marché bi di wax ay waxi tappale fii la gars yi wax ni bu fi benn politicien ñëw politiciens yi duñu ay gor seen deret deretu gor di dox ci ñoom ba noppi ci biir loolu seen waa ji Macky Sall def ay yoo xam ne waru koo def jàpp suñu leader yooyu ba mu des fan yu gàtt yu néew mu doog leen a bàyyi léegi ngeen toog naan da ngay ñuy kaas xam ngeen ne ay naafeq ngeen yéen war ngeen natt ni bu ngeen dee wër ni naafeq natt leen seen bopp ci naafeq mbaa mu xaraam yi ngeen doon ñii liggéey réew lañ leen jox urgence keesu réew mi dara nekku fa lépp la gaa yi tonni mooy ni ma ko waxee Yakham Mbaye na mu tonnee fële mu nekkoon ci affaire euh, soleil bi xaw ma kër gi ñu nekkoon ni mu tonnee la fa nekkoon tonni lépp télé yaag programme yaag lépp tonni tonni tonni lépp ni mu ko defee tonni xar ya fa nekkoon yañ fa doon yar xam naa di noos yépp mu tonni ko xaw ma mi ngi làqatu quelque part wala mu dem jaayi ko part yee man nag tey bi ma yeewoo dama am ku ma woo waa ne ko dégg naa Mansour Faye Sall mi ngi jaay nag yi te nag yi suñu nag naga quoi te doom ji mu ngi koy jaay léegi am na ku ma xam foofu noonu doo ma ko laajal ba xam ndax du ma laajal Mansour Faye Sall ndax mënumaa jaay ci nag yooyu noonu parce que damaa bëgg a def élevage quoi parce que nag yooyu noonu dafa seer benn nag bu ci nekk war na yegg presque sept million wala six millions façon nag yooyu léegi ma doon laaj ci côté boobu noonu ba xam parce que suñu nag la mais bu fekkee mën naa ci jënd it man baax na quoi pour élevage waaw nag yooyu daal bëgg naa ko def waaw boo demee ñu ngi rey di lekk rek doomu xaraam bu ñu làqatu quelque part di rey di lekk rek ni waa ji defoon suñu kéwal yi lekk lépp autorités yi xaw ma dem lekk suñu kéwal yi dibi ko dañoo lekk lekk ba yi nga xamante ni moom la ñu yoroon dëkk bi di ko taaroo sax lekk nañ ko mais lii bu dul yëfi dëmm lu mu doon wax leen ma rek lii budul yow nguuru Macky Sall bi lu ne am na fi lu ne am na lii la lii moo gën a ndaw non day jeex nañ ñu ci dimbali ay këccëg ak yooyu ay góoru Samba mbayaat ay góoru wag bang yi ñii ñii kenn waratu leen mayeeti ay fii sax ñooñu nga xamante ni ay yow nga nekk nga nekk bitim réew ndaysaan di say doom nekk fële di struggle nga am opportunité pour liggéey nga ni non non doo toog seen doo toog fii ci réew mi liggéey même bu dee six mois. doo fe toog liggéey dégg en général seen jabar yee lañ yor ci seen kër yi ñuy dem di pasar pasar ak di sàmm mbayam dégg nga loolu moo leen dal xam nga boo génnee mën a liggéey nga ñëw liggéey ngeen bàyyi ñi ci des Sénégal occupé yenn terrain yi gars yi liggéey encouragé wu leen seen gars yi pour ñu liggéey def ci action yi ñuy liggéey di leen ñuy sàcc di leen jox réew mi mi ngi doog a ci mi ngi altine incha allah ci la liggéey bi di commencé mu fegu ci réew mu am démocratie ak réew moo xam ni danañu respectel ak ak yellaf doomu aadama tele yi dañ koy ubbi yéen ñii di wax waa APR télé yi dañ leen koy ubbil RTS a ngi noonu seen RTS la ñun def nañu loo xam ne même bu ñëwee ci pouvoir bi ñu géré ko sax man ñun dañoo gedd eh, RTS mën ngeen fa doxal seen méttit yi ngeen bëgg a wax yépp waaye fii réew mi bu nekkee ci pays de droit nga ñëw wax ay fen dégg nga bu la bu la yóbboo justice na nga xam ne da dugg na ruuba waaw tëj yi moom faw mu am tëj yi du fi jóge parce que pareeguñu pour régler loolu mooy mbir mi parce que bu fekkee da nga ñëw Macky Sall lan moo tax ñaata yoon la ko Sonko wax li xew ci pétrole beeg gaz bi te tëjuñu ko ci ba dem di ko taxal ci ay aji saar kon xam nga ni li nit ñi doon répété waat ñu naan xale yi dañoo reew wala xale yi dañoo nekk ci réseaux sociaux yi di kaj yi fekk na xale yi li ñu doon wax dëgg la après dañoo mujjee di leen tooñ di leen tëj mais yéen nii yéen waa côté ax lu terroriste yi laa leen ñu xamal de justice moom fii tegu de lu leer laa leen ñu expliqué même boo bu fekkee dañoo teree nga diffamer benn doomu aadama nii mu dem moom mu jaral ko mu yóbbu la justice dana la indil problème bu fekkee ne yor na weccit pour euh, dem ak yow bu ko neexee justice moo fi tegu jëlee leen naan nag ngeen ñëw teg fii seen fen yi ngeen ñëw di teg nii mu doon ay fen leer naññ ñu woo la waa léegi yow ñun commencé nañu liggéey légui yow fenn yi ngay fenn foo tek xam nga li ma réew mi faaw ñu régler ko mais bala lolu d'abord abord yi lañuy régler ba noppi di ngeen noppi wax naa leen ko te suma leen waxee ngeen gëm ko waa ahlu terroriste katu nit yi may ànd sama leader muy ray nit may kontaan kooku saway lu garaaw la nit ku ma xam bu ma yow kër sax duma la xool àdduna ak àllaaxira nee laay fële laay xool na xam rek ñu may seqal parce que yéen ñi ngeen bëggoon ay reykatu nit la ñu ñu ciy kontaan jël réew mi caxat caxatee ko di ragal lu ngeen ragal ku ñëw di naaw naan lan mooy toog muy dox di tappale di dem ci télé di ñu profité gisaguma kenn koo xam ne mi ngi préparé débat bi dégg nga réew mi nan lañ koy redressé ci wàllu mbay xam nga commencé sensibiliser xool naan ndox mi waa léegi ngeen ñi sax soññ gouvernement bi naan waaw parce que bëri nañu bëri fu ñuy dem di defar kër kenn du fa def ndox muy dem géej wala yooyu nan la ñuy defee ndox mi pour mu dem géej wala canal yu mu mën a dem yu ñu koy defaree nuñ koy tabaxee benn ci ñoom defet bi attanuñ ko ñu ngi génn di wax waxi kasaw kasaw attanuñu defet bi laa la wax ni. Euh, chaque fois dama doon wax ne on a fait une erreur terre bi. Moussa Ball la soxal. dañu waroon woo ay entreprise ne leen ñëw leen suñu dëkk ngeen andi seen xam-xam ñu leb deux mille milliards s'il le faut Afrique du Sud moom deux mille quatre cent milliards la leb nekk dañuy créé usine buy defar locomotive yëpp léegi nag commande publique bu état. ñu jënd si yéen. état dafa soxla étranger maanaam. Ousmane Sonko président de la République dafa dire su ma nekkee président pendant dix ans. lii mooy débat bi cinquante milliards ci ci train. Mm-hmm. cinquante milliards loolu contrat la léegi yow contrat boobu si tu es intelligent je te dis balaa may jël cinquante milliards yi dem jënd Alstom ñu may jaay dix train yoo xam ne euh, day coûter extrêmement cher moom naa créé une entreprise sama réew. muy produit train yi may commandé train yi foofu donc je mets cinquante milliards dans cette entreprise. te après sous raison bi ba Moussa Balla euh, Fofana après sous raison bi dégg nga Algérie def na ko mën nga dem di jë defaral sa bopp ay terrain te yaakaar naa du yegg ci deux mille nangam milliards yii nii xoolal ma xoolal ma li ñu mel te li ñu mujjee dégg xibaar yi ñu mujjee dégg mooy terrain bi ñun moomuñu ko tere bii nii moo donte kon ñun deux mille milliards yu xaw ma dañ koo leb war koo fay ñun moomuñu la ilaha illallah te mooy de loolu mënul nga fi am sa système mu terrain di sa doom di jàng doomu sénégalais imaginel doomu sénégalais di jàng nu ñuy defaree terrain nu kii nu ñuy defaree xotti yi kii nu ñuy defaree non non non ay terroriste ngeen amoo leen fii kàddu dégg nga gaa yee leen may kàddu rek ah gaa leen may kàddu mais amoo leen fi kàddu ay terroriste ngeen dégg nga ministre de la jeunesse faw mu dem kaso fan laa ko teg vidéo yaa ngi commencé génn audio yaa ngi commencé génn dañu am même sénégalais yooyu ñu doon fay te fii gouvernement bi du ko def illégal dafa illégal yow ñu jox la salaire salaire boobu noonu fan nga ko teg bëri na ci ñu bëri tabax nañ seen kër ndey mais da ngeen xëy benn jour da ngeen am lu leen bett leen leen toroxal ngeen naan gars dañuy fayantoo loolu ngeen ñuy préparé yàlla leen dal xanaa gars yi baal leen ni yenn yi sew yi kenn du ko topp ministre de la jeunesse Pape Malick nduur da mu ngi nii Kaliphone mu ngi noonu nga xam naa gars yi moom saa bu ko gars yi woowee mu ko moom am na lu mu xam am na lu mu fekkee am na lu mu mën a teg ci kaw taabal bi du ñàkk mën nañ koo soxla quoi mais man moom nit boo xasee mel nen li rek maanaam dooma neex quoi man Kaliphone daf maa neexul personnellement damay wax rek te yàlla tax nekul doomu aadama boo xam ni am na lenn lu ma lu ma neex ci moom daal waaw xam naa tamit loolu tamit bu ko sentiree du ma déranger quoi ku ci man waaw alhamdulilah laay wax mais kalbun moomu noonu yor na ay bagas, ye ya, ye ya, yor na ay bagas. dañ leen doon jox salaire aadamoo ma ngay weddi di miim naan bokk ci aadamoo mbaamu xaraam bi nee na moom kenn daggalu ko fa euh, salaire moom aadamoo waaye li aadamoo waxul moom dañ ko doon dankal xam nga ñu sànni la benn trois millions mu ni moom publicité lay def wala benn cinq millions dégg ci doome xaraam yi nga bokk aadamoo nanga xam loolu ci ñi jaay réew mi ci nga bokk na nga xam loolu bor yi ñu nar a fay ak problème yii dégg nga yow ci le nga ci loolu laa bëgg nga xam ko gars yi nag ñoom ku leen neex mën nañ ko topp ñoo xam nit ñi moom ku la neex mën nga aadamoo neex na leen mën ngeen ko topp amul problème ñun suñu genre gi gisoo fu ñu defee live dañ ñuy daw ñun waaye mën nañoo topp aadamoo te amuñu lenn lu ñuy wax loo xam ne lu am njariñ la ci réew mi dégg nga mais Pape Malick Ndour yow di dugg kaso li lay dugal kaso te xam naa di lii sax du la dugal kaso leer na ma ni bokk nga ci ñi def ay njombe yoo xam ne dana la dugal kaso waaye lii nga doon def di jël ay jeunesse nekk euh, nekk ministre de tous les jeunesse sénégalais nga jël ay jeunesse sénégalais daggal leen salaire ne leen yéen toog leen di saaga nguur gi kese di saaga sonko kese di saaga di di di di teg ay fen ak ay tappale léegi yooyu noonu bu fekkee ne link na lenn ci xale yiñ doon rey fii wala yu mel noonu na xam ni lépp dëgg la mm-hmm. non dinañu ñëw sax dañuy bàyyi gars yi liggéey rek këtt ni jonn ma ñu xool ñu ngi ci yoon wi de maa la wax loolu de Sénégal moom suñu gàll la moom ñu ngi préparé léegi suñu bopp mais xam nga koo nekk koo xam ne presque def na fii saa ay vingt nangam ak moom pour mu préparé léegi te mosul man man calculé wu ma woon ndax bu bu fi gaa yi toogoon moom du ma calculer ne mu mukk dinaa jógee ci fii di dem Sénégal moom ma ci parce que Sénégal gii fi nekkoon moom mënu ma cee nekk waaw mënu ma cee nekk quoi ginnaaw bi ma commencé xam li daan xew après mu mujj maa déranger quoi li daan xew bu njëkk dara xamoo woon li xew ci réew mais bu ñu demee bay teg ci teg ci problème yi suñu bët nii boobu la ñu noppee am jàmm <coughs> loolu dëkk ak ay dictateur quoi dañ lay rey rek wala ñu tëj parce que comme ahlu bi euh, capable nañu lu ne dégg nga ñi toog fii ŋànkoon réew mi muy dox lu nekk capable nañ ko incha allah yàlla bëri na sutura Sénégal moom dañuy ñëw liggéey sax day soppeeku léegi léegi nga xamante ni dootuñu ñëweti ñëweti dara ci dëkk bi nii ñu ñëweti kenn beneen dëkk bu dëkk bi tegoo ci pays de droit ngay mën a liggéey sa liggéey sa xaalis di tegu ci yoon ko jëflanteel ak yooyu xam nga mu lépp tegu yoon daal ngay gis mbir mi di tegu ci yoon boo amee problème mu santé yàlla nañ ci yàlla musal xam nga mais nga nga tegu ci yoon maanaam sa ñu faj la toppatoo la loolu boo ko amee rek da ngay am lu bëri après loolu boo ko amee loo looy doyeeti tubaab bi li ngay gis fii ci dëkku tubaab yi loo koy doyeeti te nga yor sa dëkk yàlla mën laa suturaal mu leer na yow boo nekkoo ku feñaak lu ne mën nga koo am boo nekkul nit ku feñaak ku mel na tappalekat yi nekk ci réew mi lu ne mën nga koo am boo sawaree lu ne mën nga koo am boo sawarul sax da dem liggéey parce que fii dangay gis ay américains yi dem di liggéey di lay wax lewel te terewul di ngi leen dañ leen ñuy fay mu leer la kii dafa tayal di lem yaram wi di lem yaram wi ak lemmi dégg nga boo ko melee sax di nga dem liggéey même bu dee na benn huit heures de la nga ñëw teg ataaya mënoo leen ko bàyyi mais demal liggéey huit heures de toog ci buntu kër gi xam nga ñëw teg ataaya ndax yow boo xalaatee ni da nga xëyaat liggéey mais da nga calculer say heure bu tëdd jotee nga dem tëdd nekk fii naan sénégalais yi nangu ñu liggéey te yéen tegoo leen ci benn organiser wu leen teg leen ci yenn système pour ñu liggéey loolu lañ fi nekkoon boobu ñu ngi sàcc seen lay bi ñu indi loolu boobu ñu ngi sàcc seen alal yi séddoo mbaamu xaraam yi ngeen doon boobu ñu ngi séddoo seen suuf si gauche ak droite gauche ak droite ñu ngi séddoo seeni suuf léegi léegi yéen yéen yéen yéen waa waa APR waa wa ex APR terroriste yi bëgg leen terroriser ngeen di ko nangu yeen terroriste yi ñi ak ñom sax ñi nga xamanteni ni lañu andalon sax léegi ñom commencé nañu tassaro ku ne jaar na le ah dama xamni ni fu mu toll nii kal ñi kay saga tay fu toll APR la instant bi wa APR ko koy de waaw xolama lool rek yeen fi ngeen mujjé da ngeen torox yeen a ngi saagante ci seen bir ay wa wa ex ex APR terroriste yi eh waaye te ngeen am jàmm lu waay neex rek def dégg nga politique bi jotati fii nga ñëwati di jël say fetal di tiire jeex na fi parce que Pastef day joxe exemple te mësu koo def so du nekk ci réew mi yor ko ba noppi ku mel ne jaan faja jaan fada eh, eh, kii jaañ fada maanaam nu mu tuddati ñu war a nekkati ci ay campagne wala yu mel noonu xam léegi mu ne day tiire fetal loolu amatul jeex na loolu jeex na. donc Padoa dem euh, waaw loolu am na solo changement boobu am na solo borom babali loolu la suñu président wax de borom babali yeah ngi noonu te loolu gis nga da am da ngay gis benn nit boo xam ni day nekk ministre nekk leneen nekk maire dégg nga am na koo xam ni nekk na maire ci benn dëkk ñëw nekkaat action maire ci beneen dëkk <laughs> xam naa ñu téye suuf sa xam naa dëkk boobu mënul jaay suuf sa mu dem nekk ak si allahu akbar loolu lay am na fi dégg nga loolu yëpp sa waay jeexal na ko fi ñoom de ñi ñi koo xam ne def nañ la ministre day nga nekkoon maire moom jeex na fi waaw xaw ma nag leneen waaw mais nga nekkoon maire jeex na fii ci réew mi waaw ministre nga nekkoon meer loolu jeex na ci réew mi loolu amatu fi xoolal ma loolu rek léegi léegi nit ñi toppoon ci seen ginnaaw ñooñu imagine du ñu sóoraale noonu am na nit ñi topp ci sa ginnaaw mais mën nañu dem nekk mairie tey ñu mel ne ay ñeneen ñu bokk ci ay Pastef ku mu mën a doon ñooñu noonu mën nañoo nekk ay maire ay ñoom Abbas bu fekkee ne nekkuñu ci ministre yi kenn falu leen man xooluma liste bi yëpp ndax man doylu naa man ku leen ku gaa yi teg rek xam naa ne teg nañu choix bu baax doylu naa ko ñu liggéey ñu xool liggéey bi parce que ñun loolu mooy suñu débat loolu moo war a nekk suñu débat léegi di xool lépp lu ñu gis lu baax rek ñu présenté ko ñu ci jotee ñu présenté ko bu ko defee askan wi gi am confiance loolu lañu bëgg di am confiance léegi nag gars yi dañu leen bëgg divertir ci ay affaire u saaga ay yooyu dañ la ciy divertir yenn saa yi nga dugg foofu rek defaral leen ay bagages ñu sew rek bàyyi leen ci biir mais bu leen partager seen wax yi bu kenn partage seen wax yi bu kenn tàggee seen wax yi jël seen wax yi di ko tagg wala di ko partager wal bu ko def yow daal fa mu ko waxee rek boo ko fa mënee ñuusal benn affaire bu ko metti nga dóoral ko fa parce que loolu du ko neex moom day jublu ci ñëw di fen pour naqaral la mais boo fa bëggee nekk sa waay jël affaire bi aj ko léegi loolu dañ ci bàyyi xel bu baax a baax waaw jël ay kii di aj yooyu noonu saa waay day indi yeneen i mbir rek waaw ñun ñëpp war man sax neew ma man li ma leen ñu wax nii sax ci laa bokk nañu jéem a mesurer ci laa bokk ko man mii di wax ak yéen waaw moo tax ma partagé Serigne Saliou Gueye loolu mu leen loolu mu doon wax noonu. woon de loolu la woon lu mën a xew daal ci toog mu dox mi moo moom laa moom laa doon jéem a ñëw di wax ak Modou Fall moom eh, dolliwaale ci lii rek waaw di leen ko wax ni leen réew mi loolu kese ko tardé la xale yi defuñu kenn dara waaw maanaam xale yi lii ñuy wax nii naan ay affaire ñu feeñal loolu président bi moo ko wax dem leen ngeen weddanteeg président bi sa président demal nga dem wax ko fii ku fi xam ku sàcc danañ ko filmer wone ko di leen ko wax am na ñoo xam ne keneen euh, kii danañu génn ñoom ñëpp régler leen suuf boo ko bëggee danga koy jënd jënd yu jaar yoon waaye dem gars yi may la ko buñ la ko mayee rek nga dugg nga dugg ñu bëri dañ leen may fii ay suuf te gars yi may waruñoo mayee suuf soosu noonu nag leen ba ba famille yooyu dem yóbbu seen parce que am na ñoo xam ni gagné nañu justice ba noppi ah mais dañoo jaay doole justice ñàkk respecté justice boobu noonu jeex na ci réew mi dangay gis koo xam ne day dem ñu àtte benn benn cas ñu àtte ko dégg nga mu am dëgg am na ko doomu Iliane Thiam bi am na ko mu ko def këru jàmbur mu dem tëdd ci sama waay dee ca justice àtte na jox borom kër ga dëgg doomu borom kër ga dëgg mu jaay ko doole du jeex fii du jeex fii ci réew mi loolu jeex na ci réew mi loolu moo leen tiital kumba am nday fi ñi amna ben sénégalais bo xamni mo gëna diski quoi moko ko ëpp daraja ndax moko ëpp xaaliss moko sax gën lolu jeex na fi lolu bo moy gën ci ngay xamni carrément ci boomu jam nga nekkon di dem di sukkal ramal dégg nga nekk sa ah di tapalé deng, nga kon jaa jox sama gaay dem len liggéey Modou Fall dem len ngeen liggéey émission yi mën ngeen ko def une heure de temps wala deux heures de temps dem leen nga liggéey góor day liggéey góor yàlla day liggéey yee yéen liggéey ba ca kaw lal ba rek nga yaakaar ni góor loolu la war a féetoo ci kaw lal ba kese la war a féetoo nax nga sa bopp góor day toj xutu xataam di liggéey di macc di ñaq loolu la góor war a def loolu la ñu yonent bi jàngal jàng boo ko defee tamit ba noppi nga naan da ngay dem di jàngale tamit même bu dee na ngaa yor ay kii mën nga da dem nga liggéey ñaq waaw xale yi bu ñu leen jàngal ñu organiser leen yóbbu leen ci école yi ñu jàng fa diine lépp dañ ko war a organiser sax ñu xool kan mooy jàngale alxuraan loolu yëpp dafa war a jeex ci réew mi xaw ma ban ministre moo géré loolu mais war na am ay xalaat yu baax ci loolu nga xamante ni duñu indi benn lay naan gouvernement bi day tere xale yi jàng alxuraan ñu jël yëpp saay jëf def ko xool leen moderniser moderniser daara yi moderniser ko waaw nañ ci bàyyi xel bu baax a baax allo sant yàlla allo sant yàlla mu ne wat waaw waxal ظهري ظهرك